voilà mu nekkoon suñu dernière musique euh, du jour ñu àndoonti ak euh, ki nga xamante ni rek mooy Cheikh Ndiguel Lo euh, ci wéyam boobu lu tax ma koy may nag képp koo xam ne rek da ngay wu Cheikh Ndiguel Lo di ko may suñu melomaan bi ci plateau bi moom lépp la bëgg bañul dara loo teg rek bu yëngatu et di ko may spécialement sama bopp parce que voilà dafa nekk lu mu bëgg lu mu bëggal sama bopp ak ku mu bëggal sama bopp tamit donc comme ni ma ko waxee tout à l'heure tey c'est lundi et spécialement on va parler de de, de politique ak li nga xamante ni rek mooy suñu nouveau gouvernement bi qui fait l'actualité pour ça dañuy dalal tey suñu invité di Jean Noël Ndour que Aliou dama lay bàyyi nga dalal suñu ganu tey tàmbale waxtaan bi Jean Noël Ndour ñu lay nuyu ñu bon, je ne dirais pas analyste politique, mais <laughs> étudiant chercheur. <laughs> voilà, étudiant chercheur en sciences politiques. Uh ah. -huh. Donc peut-être futur analyse futur politique. Analyste politique. tey ñu lay dalal suñu plateau matinal pour waxtaanee li nga xamante ni mooy actualité bi defee la chronique ces derniers jours mooy le nouveau gouvernement formé euh, samedi dernier et la nomination d'Amadou Ba comme premier ministre nan nga gisee loolu. Euh, tout d'abord euh, maa ngi leen di remercier ci invitation bi maa ngi am mbégte ak kontante di dellu si ci plateau bi. Euh, par rapport ak miin nga fi. miin naa fi léegi <laughs> jot naa fi ñëw ci législative yi. par rapport à ta question je pense que pour ñu def benn njàngat ci li nga xamante ne moom mooy formation ko gouvernement bi il faut d'abord ñu xool lan moo waral remaniement parce que remaniement bu ñu koy waxee dafa am contexte. soit d'abord dafa am li nga xamante ne mooy insatisfaction par rapport ak gouvernement bi nekk en place beneen bi soit. Euh, dafa am li nga xamante ne mooy contexte bu jàmp ba tax ñu mën a changer gouvernement bi beneen bi mooy aussi restauration poste premier ministre boo xamante ne dafa ànd ak euh, li nga xam ne mooy gouvernement bu bees léegi jàngat bi ma si def mooy bu ma énuméré ñett yi damay gis ne dafa mel ni ñett yooyu yëpp ngi fi parce que côté résultat gis nañ ne gouvernement bi fi nekkoon ba léegi attentes yi demeewul woon noonu côté contexte bi aussi on a vu que contexte bi actuel bi dafay wane ni que am na yu bari yoo xamante ne war nañ ko yokk bu ñu xoolee aussi par rapport ak restauration bi gis nañ ne premier ministre bi tabb nañ ko mooy ki nga xamante ne moo di Amadou Ba léegi seetlu bu ñu ci gis mooy euh, président peut-être am na volonté manifeste andi lu bees par rapport ak exigence yi nga xamante ni ñu koy def. Euh, beneen bi mooy euh, am na peut-être quelque incohérence par rapport ak choix je pense que ñu bëri gis nañ ko. notamment Matar Ba yeneen ak yeneen donc gis nañ ne am na ay. ci kaaw Matar Ba yow dama bokk ci ñi jàpp ni warul woon jóge euh, bon am naa ci ñaari seetlu benn bi mooy aussi euh, je pense Sénégal war nañ di xool ni que am na loo xamante ne dañ ko war a teg ci yoon tey Matar Ba c' le ministre des sports donc nekkul simplement ministre bi nga xamante ne mooy jëm ci wàllum football bi donc ministre des sports ça englobe pratiquement tous les sports. tey bu ñu xoolee li nga xamante ne moom mooy euh, milieu sportif il y a vraiment beaucoup de choses à améliorer basket bi am na problème athlétisme bi donc waruñu rek di jël analyse bi di ko tënk rek li nga xamante ne moom moo ji ci euh, football bi. en plus lui il a un bilan mitigé malheureusement li ñuy xool rek mooy football bi c'est vrai que genre il a fait beaucoup de progrès côté. Euh, football bi ak li nga xamante ne mooy victoire euh, Lions yi ci kan yooyu noonu mais am na lu bëri tamit lu ci des maintenant peut-être fi nga xamante ne foofu la ñuy junjee chef de l'État mooy euh, contexte bi je pense que c'était pas très approprié peut-être pour ñu changer ministre des sports bu ñu seetloo ne que on est à deux mois bien même trois mois de de la coupe du monde donc changer un ministère boo xamante ne dafa important surtout ci contexte bi donc day xaw a nekk loo xamante ne c'est très délicat maintenant. président de la république ay choix am euh, moom rek a ko xam peut-être am na loo xamante ne mu koy séntu moo tax mu changé li nga xamante ne moom mooy ministre des sports. waaye sama gars yi donc ci ci gouvernement boobu toujours mu am ci loo xamante ni lu bees la ci euh, muy ministre auprès du ministre. élimination yu bees est-ce que xalaat nga ni am na apport wala impact boo xamante ni mën na ko indi ci gouvernement bu bees bi. loolu je pense que sama sama professeur Ngouda Mboup am na lu mu ci jot a wax sax parce que je que la constitution a été claire là-dessus le, le président de la République nomme les ministre les secrétaires d'État et autres donc ministre au point dafa nekk lu bees. maintenant euh, yaakaar naa ñun sax li ñu war a gën a xool mooy ministre yi euh, est-ce que fi ñu toll nii warat nañ sax di am ay ministres yu bëri noonu parce que bëri nañ ay ministres te est-ce que résultat bi demee noonu en France on a maximum seize ministres et pourtant les choses vont bien mais fii suñu gisee ay ministres auprès ça ressemble à un peu à du clientélisme politique parce que pour man mën na ñàkk <laughs> ay au auprès mën na ñàkk je pense que benn ministre rek mën na gérer li si des sachant que ministère bu nekk am nga déjà ñi nga xamante ni ñoo nekk sa sa sa ginnaaw. oui parce que le ministère est bien structuré c' est vraiment la bureaucratie les gens sont là ku nekk am nga sa sa domaine donc ministre auprès pour moi ça ça vaut vraiment pas la peine ak surtout contexte bi il faudrait peut-être euh, vraiment fexe ba budget bi. ñu jëm ko réduire mën ko yóbbu feneen plutôt que di yokk li nga xamante ne mooy ay ministre ou président c'était vraiment surtout si loolu laay ñëw parce que sur Facebook à la sortie de Mouhamadou Mbouck nomination mm-hmm. de secrétaire d'État. Mm-hmm. parce que poste boobu décrété ñu ko si biir lii constitution Sénégal. donc dama bëggoon xam te surtout si coté éducation on a vu l'arrivée de Anne si poste boobu noonu naka ngeen ko jàngatee euh, changement boobu noonu avec l'arrivée de Anne si euh, ministère de l'éducation. bon l'arrivée de Anne je pense que ñun ñun ñi nekk ci million bi. parce que le le ministre Cheikh Omar Anne bu ñu xoolee ci contexte bi sax dañuy laaj est-ce que ministre bu war a mën a toog ci gouvernement la parce que bu ñu ko tënkee ci règle d'éthique yi c'est quelqu'un qui a été épinglé par rapport de IGE nga xamante ne jotoon na leer te ba léegi ñu ngi koy waaj. te enseignement supérieur dafa nekk loo xamante ni boo ko boo ciy tab nit dafa war a nekk ci euh, ci ay profil yoo xamante ne au moins éducation dinañ la nangul parce que ministre boo xamante ne tey rapport IGE daf ko épinglé nga bàyyi ko enseignement supérieur est-ce que amul incohérence ci côté profil beneen bi mooy éducation nationale <laughs> je pense que ça parce que éducation nationale ñëpp gis nañ réew mi depuis quelque temps li nga xamante ne li fi am donc est-ce que il sera à la hauteur pour mën a gérer loolu noonu yëpp je pense pas parce que c'est un ministre vraiment très décrié maintenant il y a d'autres logiques politiques qui font que Cheikh Oumar Anne dans le contexte politique am na ay résultats yoo xam ne daf koy def peut-être loolu le président sukkandiku pour gën ko mën a bàyyi ci gouvernement c'est ce que gis naa ne bu ñu defee ministre auprès du ministre gis naa ne ñu fi jot a indi te pourtant yàgg nañu am ministre délégué te il est nullement écrit sur la constitution que nii te après les ministres y a des ministres délégués mais gis nañu loolu mosul am problème lu tax nit ñi bëgg attardé wu à que naan on a fait des ministres auprès du ministre mu war a nekk benn coow selon yow la moo waral ci détail yooyu noonu en fait au lieu ñu wax ci profil nit ñu wax ci li ñu mën a mais ñuy wax ci détail yoo xamante nii yàgg na fi am lu tax ñu war a ci loolu xam nga sànq quand je parlais de de clientélisme dafa nekk loo xamante ne tey cadre ministre nit ñi dañ ko dañ ko dañ ko dañ koy décrier lu bari donc le fait que ñuy indiwaat ay ministre auprès dafa nekk loo xamante ne nit ñi pour ñoom mën na bañ a ñàkk. ay ministres de sachant que ministre auprès aussi du ci nekk dafa am benn rôle spécial boo joué par rapport ci biir ministère bi tey par exemple boo jëlee ministère euh, des affaires étrangères. Mm-hmm. ñu tàbbal ci ki nga xamante moom mooy ministère. Euh, auprès du ministère euh, chargé des Sénégal de l'extérieur maanaam ñoom ñaar ku nekk ci biir ministère bi am nga sa rôle a def donc pour man warul nekk benn problème voilà de Biram Faye bi nga xamante ni moom mooy gérer tout ce qui est sécurité euh, agent de sécurité de proximité donc moom certes mu ngi ministère mais dafa am aspect boo xamante ni uniquement loolu lay gérer donc je vois pas man je ni mu war a nekk benn benn benn benn benn coow boo xamante ni gars yi dañ koy dañ koy dañ koy alimenté nii pour man c'est des détails quoi en fait yow en tant que analyste politique lan moo tax nit ñi di ci di ci attardé wu. waaw mooy li ma la parce que nit ñi dañoo dem ba euh, poste dafa nekk loo xamante ne nit ñi dañ commencé di ci réticent trop parce que joxe poste joxe poste est-ce que joxe poste bi dina andi ay résultats loolu moo gën a tax parce que yaakaar naa ne tey bu doon am ay résultats. nit ñi bu ñu waxee ministre auprès de ça va pas ça va pas poser problème mais le fait que à chaque fois ñuy wax ministre auprès de ministre délégué et résultat yi dañu ko la plupart on voit comment les ministères fonctionnent ak yenn affaires yi fay am donc moo les gens sont très sceptiques par rapport ak idée wu ministre auprès de bon maintenant au Sénégal ku nekk day que le président am na peut-être benn canevas bu muy def pour peut-être atteindre mooy après le reste di si di si di si tegu aussi donc euh, boo nee ministre des ministres auprès de day mel ni ñaari ministre la ñu amandoo au lieu de benn en fait moi je pense que communication bi moom moo xaw a des ak ñu bëri peut-être comprendre ministre auprès euh, du ministre peut-être c'est c'est un peu plus côté boobu que di décrier wala ne amul sens parce que mun nga nommer ministre euh, nommer ñi si topp nome waat yeneen personne yu bëri yoo xamante ne on les appelle par ministre quand même te te te te peut-être li ñu wax ministre ak ci ministre mooy je pense que moom moo xaw a déranger tuuti population bi disant que dafa bari foo doon waxee benn ministre et puis nga continuer léegi da ngay ne ministre ne ministre auprès du ministre peut dafa di si ñoom je je pas parce que li tax mu mu mu yee euh, comme ni nga ko waxee polémique bu bëri boobu noonu ku nekk di ci wax bon ñoom aussi waroon nañu wax réellement ce qui les dérange à la dif comme ni mu ko waxee ministre auprès am na lu muy liggéey d'accord mm-hmm. mais peut-être population bi dañoo comprendre wala lim bi moo bari si ñoom. voilà Malick euh, en tant que analyste nag nga gisee tey ñi nga xamante ni nga fi woon ñu jël leen ci après indiwaat leen ci ban jàng nga am ci loolu. waaw xam nga remaniement comme je l'ai dit rek dafa am contexte. tey peut-être bi leen président di dindi li nga xam ne mooy si gouvernement yi dafa amoon contexte bu am. et pour la plupart ñu ñu jotoon génnee sax mën na ay éco comme quoi que c'était des possibles adversaires bien. Mm-hmm. en tout cas ñi nga xam ne mën nañu. di leen teg bàgg yooyu donc côté boobu noonu peut-être ils étaient écartés. loolu peut bokk na li tax ñu ñu ñu dindi leen le fait que ñu ñëwaat tamit comme je l'ai dit c'est le contexte et surtout bu ñu taxawee ci profilu premier ministre euh, d'une part nekkuloon surprise avant la nekkoon surprise parce que à partir du woon nañ ko ci gouvernement bi indiwaat ko peut-être am na lu changé tey ci profil bi xëy na loolu la Macky gis ba indiwaat ko te li tax mu indiwaat ko peut-être aussi am na beneen xar kanam bu mu bëgg a parce que tey boo boo écarté koo xam ne dañ ne woon euh, sa possible concurrent la nga andiwaat ko. peut pour taire les polémiques par rapport ak li nga xam ne mooy Dauphiné donc le fait que ñu andiwaat leen am na am am na ko waral. ci ñi mu indiwaat am na kenn koo xamante ni euh, daanaka tamit commencé na def polémique mais Ismaïla Madior Fall yow euh, juriste nga Ismaïla Madior Fall yu bëri di sax woowee tailleur de la constitution yow nan nga jàppee euh, son retour peut-être mooy baliser la route à Macky pour un mandat <laughs> man personnellement c'est euh, c'est le choix qui m'a beaucoup plus surpris pour dire vrai parce que je m'attendais vraiment à ce un professeur Ismaïla Madior Fall que j'apprécie beaucoup revienne au gouvernement et loolu comme ni waxee moi j'ai eu cette même perception et ça a soutenu à l'œil parce que Euh, Ismaïla Madior Fall dafa nekk koo xamante ne il défend de manière plus ou moins explicite li nga xamante ne mooy possibilité wu président am pour proposer une troisième candidature euh, donc soo ko andiwaatee ci gouvernement bien sûr day am polémique maintenant li ñu war xam tamit mooy il est le ministre de la justice mais il est pas en tout cas euh, le procureur de la république ni le président du conseil constitutionnel donc heure décision bu jotee xëy na dinañ xool ñi nga xamante ne ñoo yor affaire bi ñu ñu laaj leen. comme conseil am ñuy méngale sa son retour tamit ak ni ñu nomee Badio Camara. au conseil constitutionnel ñu bëri jàpp ni peut-être Macky mu ngi euh, maanaam bokk li olof naan daas fanaanal donc. xam nga suñu suñu euh, suñu arsenal juridique. constitutionnel moo demee noonu parce que même bu dul euh, Ismaïla Madior Fall keneen ko mënti andi tamit il euh, am prérogative euh, mooy conseil constitutionnel donc même bu dul Ismaïla Madior Fall keneen lépp lu Macky def peut-être dina ko dina ko mën def donc maintenant c'est le profil de Ismaïla Madior Fall qui dérange le plus d'un point de vue ci contexte bi parce que dafa nekk koo xamante ne tey je pense que même bu muy nekk ministre de la justice gars yi am na loo xamante ni dafa changer kanam nous les universitaires on sait que le professeur Ismaïla Madior Fall qu'on connaissait dans le milieu académique ak bi dugg ci euh, politique c'est très différent. Et donc toujours euh, muy fayale ok toujours fi euh, Aliou di waxee woon foofu laa ñëwee gis nañ gouvernement bu bees bi am na ñu bëri ñu naan Macky prépare sa troisième candidature ñu naan Macky prépare un dauphin ki Amadou Ba ñu naan Macky essaie juste grande porte yow tey naka nga jàngatee gouvernement bu bees boo Macky Sall teg tey di 18 mois moo ko dese presque gouvernement bu mu teg c'est un gouvernement de quoi de sortie ou bien un gouvernement de troisième mandat toujours si APR. Euh, waaw xam nga euh, c'est une question très délicate parce que euh, je pense que ñëpp seetlu nañu ko et ce qui fait que souvent beaucoup d'analystes se trompent c'est que le président de la République est quelqu'un de très imprévisible yàgg naa di ko wax. les gens disent que day signaler droite jaar de gauche donc même ci troisième mandat bi man je pense que à partir du moment où il s'est pas encore prononcé il y a toutes les possibilités en tout cas qui s'offrent pour mu mën a peut-être jéem a présenter wu. ou bien mu bañ a présenté wu maintenant suñu xoolee ci li nga xam ne mooy remaniement bi mhm. le fait que Amadou Ba ñëw nekk premier ministre am na lu mu mën a wone peut-être Macky est maintenant prêt à vraiment préparer une candidature d'Amadou Ba benn la beneen bi suñu xoolee cadre ministre de la justice ak yeneen yi mun nañ gis ne peut-être am na lu muy waajal parce que jusque-là en tout cas rien n'est encore sûr parce que je pense que Abdoulaye Wade l'avait fait pourquoi pas des possibilités qui s'offrent à ce mu def ko lan la Sénégalais yi mën a xaar ci gouvernement bu bees bi léegi. man je me dis que contexte bi fi mu nekk nii euh, ce serait très difficile parce que bon il y a une petite lueur d'espoir qui se qui s'ouvre mais dañu war a xam ne euh, les choses sont beaucoup plus profondes que ça parce que contexte bi il y a un contexte d'abord national et un contexte international. Mm. parce que tey bu ñu sukkandikoo ci contexte international ak li nga xam ne mooy guerre. Euh, russe ukrainien bi am na lu bëri jafe-jafe yu bëri yoo xamante ne am na ko ci yenn réew yi euh, rawatina suñu réew donc li ñuy xaar ci gouvernement bi pour man peut-être un gouvernement de de redressement parce que je pense que loo deful ci pratiquement dix ans plus de dix ans mënoo ko def ci euh, un an et quelques mois donc il faut juste être réaliste maintenant ce qu'on attend du gouvernement c'est au moins qu'il fait tout pour essayer de d'alléger en tout cas li nga xamante ne moom mooy souffrance su Sénégalais yi. Oui, je, pense que Jean a bien euh, expliqué. Bon, c'est vrai que Wartou est rat, mais quand même, euh, na au peigne fin toutes les questions. Il a déjà fait, mais Fatel, il y a Jean-Noël Ndour. Je crois c'est Massé Gabi, <laughs> c'est. Massé C'est rare, quoi. <laughs> <laughs> Jean-Noël Ndour, nekk étudiant chercheur en sciences politiques. Mhm. ñu lay jaajëfal sa teewaay suñu plateau. Euh, tout d'abord maa ngi leen di remercier yéen ñëpp. di wax ne yéen a ngi def liggéey bu bu am solo et surtout euh, c'est pas pour me vanter mais am na ñu bëri ñuy naan yenn plateau yi dañ fay invité ñoo xamante ne peut-être ils sont pas bien appropriés pour mën a comme li ñu wax rek ku nekk wax sa xalaat. mais bon je pense que c'est bien parfois de remettre les choses dans leur contexte même si parfois la parole peut être donnée à tout le monde mais pour plus de d'efficacité surtout. ku nekk ñu koy jox li nga xamante ne moom mooy sa wàccuwaay. et aussi les jeunes parce que. les jeunes surtout waaw et j'ai vu aussi que y' a vraiment la présence de beaucoup de jeunes et c' est très important parce que y' a il faudrait qu'il y ait vraiment une représentativité de, de la jeunesse. je je vous félicite encore une fois et vous encourage par rapport. à ce que au travail que vous êtes en train d'abattre. merci beaucoup Aliou bàyyi nga tàggoo. oui di la jaajëfal Fatou di jaajëfal Sadio ak euh, suñu sportif bi qui vient tous les lundis l'ami euh, <laughs> le disciple le fervent disciple de Matar Ba je rigole euh, mbokk yi ñoo amoon mbégte lool teew fi mu nekk seen première émission de la semaine ñu leen jox di daje ëllëg bu soobee suñu borom. et comme d'habitude avec la même équipe mais le fervent disciple de Matar Ba du si bokk Aliou Ba Thiam Tijane <laughs> maa ngi ci sànq yow Mbadou ah ñii daa mel da ngeen amoon paasu de yéen ñii. la nga tàggoo waaw waaw ah, ba ni TikTok baa ngi baa ngi baa ngi jolli quoi parce que gars yi nee na ñu Matar Ba prévoir pour yóbbu leen mm. euh, Qatar yëpp. mu ngi jooy ñoom ñoo gën a sax Matar Ba bi nga xamante ni nii nañ ko ci ci ministère boobu. Euh, di la gërëm aussi euh, di. félicité ni ngeen di franchement ni ngeen di doxalee plateau bi mu nekk benn plateau boo xamante ne nii man saa su ne damay am plaisir di fi di fi ñëw fekk fi Willy Sadio fekk fi Aliou ñu nekk ñaar ñoo xamante ni aussi macha allah daal lu mu leen di wax di jox aussi dig daje ki nga xamante ni ñooy suñu ay téléspectateurs spécialement ñi seetaan sport lundi prochain incha allah. incha allah Sadio. donc tey maa ngi xam si ki nekk Jean Noël Mboup étudiant chercheur en sciences politiques merci si leeral yooyu noonu nga ñu indil tey merci Tidiane xam naa ne suñu biir Qatar moom lañ jël moo tax rek nga ñëw ak nooy nooy bu metti <laughs> Aliou euh, merci vraiment si leeral aussi nga indi si parti euh, politique comme d'habitude am na koo xam ne tey dama koy aju dëgg fa neex yàlla maa ngi remercier képp koo xam ne ndax place. <laughs> lii de mosuma woon gis. soo ñëwee di xaar ma tey fan nga yem bon suñu téléspectateur maa ngi leen di xala tey fan nga yem da ngay jaay bàyyi la loolu voilà. donc euh, maa ngi leen di remercier yéen ñëpp ah, Aliou ah, Tidiane ñun aussi c'est un ah, de t'avoir tous les lundis ci suñu plateau xam naa ne dinañ gën a yaatal remercier Sadio aussi Jean-Noël Massiga Ndour voilà donc euh, ci pertinence bi ci explication yi et tout ak sa disponibilité vraiment di remercier téléspectateurs yi àndoon ak ñun depuis ce matin ci suñu émission suñu matinale ci suñu Label TV donc très bon début de semaine on se retrouve demain et et Label Radio 99.6 waa Kabi ak Senubuzz ñu ngi ñëw ah, pour le des ci journée bi donc à demain inchallah et très bonne journée